jaajëf Momo Ngom la doomu baabu Ngom la vraiment tey gis ngeen pëjëm bi gis ngeen li nga xamante ni jamaïcain def na ko ci son ak lumière mu doon loo xamante ni vraiment xale la boo xamante ni jar na jàppale saa su ne ma wax ko ndax réew mi dañuy soxla ay xale yoo xamante ni dañoo am gëm-gëm Sénégal dafa soxla xale yoo xamante ni fépp foo leen gis seeni fit seeni jom seeni njàmbaar xale bu ndaw jóge Sénégal ñëw Gambie organiser fi lu rëy di xoolal boo delloo ginnaaw tuuti diggante ki nga xamante ne mooy Baye Mandione. xale ko roi des arènes bu bi muy xoyantaan mu doonoon affiche boo xamante ne keroog state bi def nañ ko lu musul am ci làmb Gambie def ko direct ci télévision 2S euh, Sen TV euh, TFM barki démb moo ko defoon direct mu doonoon loo xamante ne vraiment am na solo gaa yaa ngi noonu. Euh, di leen béggewaat bu baax sama waa ji. waa Jili. maa lay ziar. waaw maa ngi sant bu wér. organisation bi. waaw waaw ma ne. waaw ñu ci koom gis nga ko depuis démb ba léegi koom bi laay. waaw waaye fi mu ne moom sant yàlla bu baax baax baax. waaw ndax léegi mom lépp. affaire bi dafa mel ni fi mu toll nii actuellement. Euh, bari na ay coono yoo xamante ni nekk na ci de. waaw waaw waaw mën naa ne coono yi moom fi mu ne moom jeex na. ndax boo xoolee depuis bërki dem ba léegi ñu ngi si. li waroon indi yëpp indi nañ ko. li war a teg yëpp teg nañ ko danoon xaar rek gan ñi ñëw ñu jóge Sénégal ak ak yeneen ak yeneen loolu lañ ci doon xaar man daal fi mu ne moom mbëri rek la ñuy xaar ñu ñëw ñu teg bagage yëpp. Mhm. noo gisee affiche bu mel ni Leket Baara ak France. waaw xam nga combat bi dafa nekk combat boo xam ne ay at lu mat juróom-ñetti at ñu ngi koy dox kenn mënu koo taxawal far yàlla def dem am sens taxawal ko moo tax il faut que coow li bari moo tax place bu ñu ko bëgg a yóbbu tamit wax ne xaju fa waaw moo tax ñu reyante ba ñëw fii waaw tamit ñëw fii tamit wax dëgg fa ne yàlla rëccuwul ko ndax fii boo xoolee am na lépp danoo ñëw rek teg suñuy bagage waaw fi noonu kanam tuuti leen di xaar rek mbëri ñëw ak seen i fan ñu commencé affaire yi. jaajëf kaay. yaa ngi jàmm. waaw. ça va bien. ça va. noo tudd. Ah. waaw. waaw ah, dañoo bëgg a ruube. ah. Mhm. lu ngeen nar. ay bi tey lu yomb. Eh, eh. waaw waaw.